asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna bi asalaamaaleykum mbokk internet ñu ngi am lépp xam ne moo di Saa Xam Sa Mbir ci seen émission bi ñu dëppee ci daanaka ci turam mu nekk Xam Sa Mbir ñu ngi fii nag ci Guédiawaay ci croisement Béthio en face hôpital Dalla Diagne fas yéene waxtaan ci li nga xam ne mooy wàllu xëccoo dinañ jàngee ci loolu dinañ dugg ci mbirum parrainage dinañ waxtaanee tamit mbirum ujje daanelee suñu waxtaan ci li nga xam ne mooy mbirum ñi nga xam ñoo nekk ca bitim réew maanaam lu mu mën a def ba noppi ba lépp loo xam ne passé dañ salaam maa ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel di ziar waa àdduna bi yëpp di leen wax ne ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru màgg wi ñu bàyyi ko mi tabaski gi di ñaanal ñëpp rawatina waa diaspora bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers suñu sit bu mag bi muy seen jaspora ñu ngi leen di ziar bu baax wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñun nag waa sëñ bi maa ngi kontaan bu baax ci laaj bi ndax jamono jiñ toll nii mun naa wax ne actualité bi danse na trop ñëpp a ngi wax ci wàllu xëccoo bi ci njëkk mooy wàllu làmb ji barki dem rek gis ngeen signature bi muy ñaari gaynde yooyu muy Balla Gaye ak Modou di wax ne euh, Balla Gaye ku bari gàllaaj la waaye gis nga gars yi fexewoon nañ ba daaneel ko ba fi mu ne nii mu ngi jogaat nànk-nànk waaye maa ngi koy wax ne man fi ma dëkk soriwut maa ngi moom ñoo dend koñ am na foo xam ne bu fa jaaree foog mu daan Modou Lo ndax mbiru xëccoo lenn rek moo ci am xëccoo yi ñu mës a gis ci alxuraan yëpp ak yi ñu mës a gis ci histoire yëpp li ko waraloon mooy ku la ëpp gàllaaj ëpp la ñaan rek kooku moo la mën ndax booy xool muusa ak na bi muusa ñëwee sànni ay yetam euh, na sànni ay yetam mu nekk jaan ñoom ñëpp ñu toog Moussa bi mu sànni yetam bi dafa nekk benn jaan boo xam ne dafa wan na jaan yëpp yaa ngi dégg moo tax man am na loo xam ne am na etu dëmm xaw ma xam nga ko déet boo demee Saalum nga laaj ci etu dëmm etu dëmm benn garab la goo xam ne benn bant kese lay sax. bant bi bu guddee bu gudd du romb un mètre day weex daf benn cet ci kaw comme day mel ni genre moni boo xamee obélisque ni mel noonu la mel mais day weex te etu dëmm boobu soo laalee nii rek mu dem ñu tuddee ko etu dëmm parce que du am karaw du am xob du am euh, du am dara lu sax ci kaw bant bu benn bant lay def nii rek donc Balla Gaye maa ngi koy wax fu mën a nekk mu indil ma etu dëmm woowu noonu bu ma ko indilee ma defal ko loo xam ne yet boobu noonu mën na ko may ndam te dootu daanu fekk mu ngi yare yet boobu noonu loolu na ma seet si wala ku ku ko jegee seet si ma ku mën a doon rek te mu uti yetu dëmm woowu bu demee Saalum mu laaj ci yetu dëmm laay ut danañ ko surtout nawet bi instant yi day yomb benn rek nga ci ut nga indi ko ñu am luñ ci liggéey jox la ko et woowu noonu daanaa gis Balla Gaye di ko téye ma yet bu ndaw la nii xaw ma fan la nekk nag mais yet boobu noonu depuis mu am problème ak staffam ba léegi amatu ko bu ñëwee ma liggéey ko waxuma Balla sax mais képp ku yore kuy mbër rek te bëgg ndam boo ñëwee ma liggéey la man moom maa ngi nii man non man nag duma duma koo xam ne ku ma ko xas liggéeyal ci ñoom ñaar wax dëgg yàlla du ma ko liggéeyal moroom keneen si des du ma ko def loolu mom jaral na ma lu nekk mbëri fi gëna bari pexé mais suma xasse def pare naa ci. candidat yu bari nekk Karim ci xam nga damay wax ne ñaari victime yi gëna mag ci aduna bi moy Karim wad ak Khalifa Sall ndax ñoom ñëpp li ñu leen jàppee mën nañ ko jàppee ku nekk mais Karim li gën a louche ci moom tey rek maa ngi seetaan benn video mooy bu Ahmed Aïdara intrusion Ablaye Wade bi mu ko seetee France Ablaye Wade di ko wax ne li gën a yéemu ci bagage yi mooy xoolal Karim Macky bi mu demee ba gis ne foog mu tàggali koo Karim dafa woo émir bu Qatar ne ko kii sama doom la yow xaritam nga ñëwal nga jëleel ma ko fii Emir bu qatar ñew indi procureur de la république bu qatar mu ñew ci biir ay prison bi ñu defal ko passeport ak lepp karim dafa bañoon mu jigi ci la nangu mu andak ak mom jëlal ko vol spécial mu dem xam lu loolu louche na torop mais su fekke bëgg na dellu ci ci réew mi ñom nañ ma indil ñom fuñ ma mëna nek ñom xam nañ ko Abdoulaye dama ngi koy saluer nek na ko xamne ni mosna tassé ak mom moom Abdoulaye Wade maa ngi tasewoon ak moom ca Fatick ci sama benn xarit boo xam ne mu ngi may dégg ñu koy wax Aliou Faye Abdoulaye Wade foofu laa njëkk a taseeg moom ñuy waxtaan ñu ne ko kii zikarkat la wax ko mu ñaanal la ma dëgër fit nag jël loxoom bi bind ci benn secret bu mag ci jamono jooju yàgg na mu yëkkati cinquante mille may ñu ko ñu nekkoon foofu noonu li may wax nii ñu ko fekkee fekkee nañ ko c'était en 2004 2005 mais bi ñu liggéeyee loolu yàlla gi mujj gi yàlla dimbale na ko te secret boobu bokk na ci secret yi nga xam ne yu gën a mag la nga xam ne nit waru ko bindal nit mukk te fay la yenn yenn yenn somm yi wala mu weexal la dëgg-dëgg weexal donc Abdoulaye Wade li ma mën a wax ci loolu mooy man mën naa fexe Karim ñëw sampuwaat ci réew mi comme ni mu samp woon ñoom moo Khalifa Sall ñëpp wante nag su ma la waxee dëgg rek liggéey boobu noonu maa ngi koy def ci benn nagu siiwe laajteel nagu siiwe boo ko jëndee ñoom buñ ko reyee ñu indil ma bopp nagu siiwee bi rek mun naa liggéey loolu. noonu ci lañ koy liggéey def ko fanaanoo xool fi nga xam ne mooy këram ñu dem defee ko foofu noonu loolu buñ ko fa defee. gën caa yàgg dina dem ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett lu bari ci mbiram dana réglé wu muy moom muy xalifa sàll ak kum ci mën di doon. mais parce que Macky Sall moom njabarkat bu mag la te loolu gars yi bari xam nañ ko te nëbbutuwu ci sax. mais mais Macky Sall kay man am naa sama xarit yoo xam ne ñu ñu jëloon ñu waroon dem Luxembourg pour duggal président de la république jëloon na ñaar fukki sëriñ ak juróom ñoo xam ne kenn ku nekk dañu jël sa passeport fay la lu ndaw ndaw ndaw gis naa ci ñoom koo xam ne 361 millions lañ ko fay benn par benn te loolu am na lenn ci sëriñ yi ngay gis internet bi ñu bëri ñu xam ne ramassé nañ leen yóbbu leen te loolu fii la ñu fekk donc Macky Sall fooyewut lu muy def nii loolu loolu pour parrainage bi la ak faluwaat parce que temps yim songee Khalifa Sall lébu yi dañoo yëngu dal si kawam mu am problème yu mag si la commencé di def loolu ba fii may waxee yoon i palais la fay fanaan ëpp na juróom fukki nit njabarut nànk mën naa la fétiche noir sax da koy def 77 mm. am Karim am na ginnaaw mais nag des naa fonk sëriñ bàyyam Abdoulaye Wade moo ko gënoon fonk sëriñ mais mënatul wàcc si terrain bi te xam nga PDS léegi dafa divisé wu mais ku ne xam ne PDS ñi fi dàqoon fonk sëriñ kooku mooy Ousmane Ngom ñoom Omar Sarr ñoom euh, Madické ñooñu ñooñu fonkuñ sax sëriñ nànk ay milliards dañ koy def ci sëriñ ay millions te loolu yaakaar naa ne mën naa wax ne moo am na sama benn xarit boo xam ne euh, Ousmane Ngom euh, déedéet kii laa bëgg a wax Kaba yàgg na mës na ko woo proposé ko ay bagages yu bare bare bari proposé ko xaalis bu bari pour ñu ànd dem euh, euh Pakistan té ko non bu sétane vidéo bi xamna ki may wax parce sama xarit la mi ngi dëkk Jili Mbay pour ñu dem liggéey ay bagage moo tax moom bi mu demee bi mu demee boo Sidi Kaba bi mu ci mur de xaw ma Lamantin boobu noonu voilà gis nga gis nga affaire yu fa def donc ñom ñoom foyewuñ seen bop dal dañu dépenser ay milliards ci walu sëriñ parce que xam nañ ne Sénégal gi mëno fee falu té amo sëriñ mënu nekk ak lu ko mën di wax da nga dugg lu xalo force di nga jëfandikoo galaaj yu ñuul pour nga mën a yéeg nguur moo demee noonu gis nga sonko sonko bu góor góorloo mën naa dekk président de la république am na xam-xam ndaw la set na nit ñi bëgg nañ mais lenn rek moko manki moy bayrem dafa dess sonk day génn plateau melni dara du xew day dem tok ndaje yi mi def day simple il faut mu dugg ci biir serigne ci jëfëndiko yenn garab yi am ay ndomb yu may defar yo xamne ne ngi koy ñaan na ci ñam benn mu xol ndomb yi mom la tuddé ndomb sampuma dama koy liggéey maa ngi ko tuddee woon ba ma ko njëkkee liggéey maa ngi ko tuddee woon garde corps dama ko maa ngi koy liggéey ba léegi semaine laa koy liggéey mu door a pare